Coucou, hello, méga, mais Samy, c'est Rita Paradis Massaïba, la Farmaren qui est là parmi nous. yéen a ngi ànd ak suñu ci TV ci ay chroniqueur Rita comme nu koy defee saa su ne ah may ñaanal ñëpp kooru jàmm ak salaam ah di wax ne ñun suñu réew dafa pauvre manqué hôpital amuñu hôpital amuñu sage-femme yu baax amuñu médecin yu baax amuñu école yu baax dëkk boo xam ne boo feebaree dee ngay gën a xalaat ka wér yow nit koo xamante ne dafa ñëw ak mettitam am mettit bu tar di la ko jooytu di la expliquer di la wax boppam di la wax li koy metti yow amoo sax xolu yërmande ah pour dimbali ko mu faju nga seetaan ko mu dee c'est grave ñun dëkk bi ñu nekk ku yóbbu nag di ñaan yàlla wér gu yaram ndax nee naa la fii boo fi feebaree wala nga def fi choc da ngay dee amuñu ñu ñu faj médecin yeeg sage-femme yi amuñu yërmande reew nañu xamuñu nu ñuy waxee fuuy nañu ah te yow xamoo ne malade bi nga xamante ne mooy ñëw pour nga faj ko moo tax ñu teg la fa bu dul woon malade bi kenn du la fay parce que lan nga fay def nañu jéem a changé dëkk bi mi ngi gën a graaw ay dee yu banaal ay ñoo xamante ne dañuy bàyyi seen njaboot dee ci dee bu banaal ñu di ko seetaan bu ñu waxee ñu naan garaawul dëkk boo xam ne boo waxee ñu ne garaawul amul problème lu ma gën a metti dañ lay def lu la metti nga di ko joytu ñu ne la maa ngi jéggalu ak garawul di seetaan nit ñi ñuy dee dee bu banaal maa ngi ko doon wax sama benn vidéo nekk dañu soxora soxora soxora soxor bay soxorante ci suñu biir ba yow après sax dangay ngay mujjee soxore sa bopp parce que faj nit mu wér yaakaar naa ne loolu fierté yow sa bopp la yow mi nga xamante ne yaay faj malade bi mu wér waaye ngay seetaan benn malade boo xamante ne dafa ñëw ak métitam war a nga war ko dimbali dimbali woo ko ba mu dee ça c'est honte nañu seetaat suñu jikko yu bon yu soxor yu iñaan yi ñu yore te jéem a changé fii ku feebar Europe ngay xalaat dem fajo parce que yaa ngi naan bu ma fajoowee fii rek dinaa dee yal nañu yàlla musal ci feebar musal ci mboole mu jullit tax nee naa la Sénégal bii ku fi feebar da ngay dee xaalis lañ lay laaj balaa ñu lay laal boo amul xaalis da ngay dee yenn saay nga tax nga nga nga jànkoor teeg ñu soxor ñu méchant surtout sas-femme yi fuuy nañu réew nañu soxor nañu teeg ñu soxor ñu méchant surtout sages-femmes yi fuuy nañu réew nañu soxor nañu beew nañu sages-femmes yi ñoo gën a réew ci àddina bi Sénégal ñun daal suñu dëkk mooy pauvre feebar faju école bu baax jàngalekat yu baax ñun looloo ñu manqué li li nekk priorité ci dëkk bi ñun loolu moom moo moo manqué suñu réew ñun tey samay chroniqueur ci loolu la doon wax may ñaanal ndaw soos yal na ko yàlla yërëm fa mu jëm gënal ko fi mu jég jógee samay chroniqueur tey ci loolu la doon wax al coucou hello méga mais Sami c'est Rita Paradis Massai Balago Farmaren qui est là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 ñuy rendeeku di mer ak di xotteeku nañuy dal te xam ne weeru koor du dara benn weer la ci at bi donc bu ñëwee rek war nga cee mën a jaamu yàlla waaye nee naa la war ngay dalal sa xol di ci sotti glace muy sedd di naay di neex waaye mer geek rendeeku geek xotteeku gi yëpp dara jaru ko ci ndax nee naa la boo wooree ba mu ngoon jot rek dangaa war a lekk lu neex sa yaram di naay ngay belli waaye ànd ak say xarit ngeen dajaloo def nii xoolama jëlama taabal bi la a ngi ci ñoom presque ñoom salade de fruits yi ah xoola góor a moom ñoom asmalik ñoom dañu mën partage nee la ton bi ki koy togg asmalik la waaw moom da ciy ay ñamax-ñamax ba mu neex affaire yi neex nee la fu 18 heures jotee rek ñëpp dañu daal di la ni muy toggee ton ba dafa doy waar as waaw bu dul sa damm ci loxo bi ah kon sama gars yi samay chronique tey ci loolu la doon wax bu la toggalee ton rek nee naa la boo oh. koy lekk da ngay waxtu ah muus yi sax dañuy ndogu fii ñëppay ndogu ñun duñu meer di rendeeku di mer ah ak di xotteeku tey samay chroniqueur ci loolu la doon wax I love you so much